bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ni déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër 22 heures ma jot beeg 45 minutes Haji Mbacké asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu nu bàyyi la nga nuyoon teeg way déglu yi jërëjëf oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel ci DFM seen rajo ñi ci ko baaxoo tërale lañ ko fas yéene tëraleeti insha allahu taala nes tuuti daañu ñëw ci xew xibaaru daara ji maanaam xew-xew yi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci ay bis gi ñu nekk ak gi ñu génn buñ ca noppee wéyal jotaay bi toftal ci laaj yi nga xam ne moom la ñu yi yónnee ci email bi di albidaayatu arobas yahoo point fr bu ñu demee ba minuit jot ñu yëkkati ko ci xaaj bu njëkk bi dégtalaat leen tafsiru wala quranul karim bi euh, amoon ay gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak ñoom ci alkitab xawla rasul ak muhammad nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy wéyale jotaay bi oustaz ba 5 heures jot ñu déglu alxuraanul karim 5 heures 30 almisbaax la ñuy déglu 6 heures ñu ànd ak mbokk yi ci waxtaanu fajar tey di alxames kon fajaruk àjjuma lay doon waxtaanu fajar wi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallaahi ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci suñu borom subhaanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéenee tëddee tabaarakallaahu jërëjëf xaaj Mbàkke defe naa fàtte woon ne bis na ko tey la sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si wàccoonub liggéey wallaay ndeysaan oustaz bis boobu daa mel ne tey jii moom kenn du ko fàtte ndax moom day jëmm joo xam ne euh, àdduna mënatu koo fàtte xam naa danañ ci ñëw ci waxtaan lu yaatoo yaatu insha allah danañ ñëw ci waxtaan lu yaatu xaaj Mbàkke tabaarakallaahu wa laqad wulidtu wa li ridan bi wiladati bi wiladati fi manhaji tijaani daa di am fukki weer ak ñaar xaat tabaarkalaaw 15 mars 2017 15 mars 2018 jërëgéen jëf si ànd beeg si DFM seen rajo mbokk mi di Alxaaji Ba mi ngi ci Thiès di ànd ñun jotaay bi Alxaaji Ba asalaamaaleykum la ne ko salaamun salaamun yaa oustaz ah, tabaaraka <laughs> am na solo de alhamdulilah tabaarkalla kon del si nañu ne la salaamun euh, jërëjëf oustaz salaamun mooy tekki lan salaamun mooy tekki maa ngi ëmb jàmm yët leen ko ndeysaan waaw salaamun maa ngi ëmb jàmm yët leen ko leen ko kon ab xeetu nuyoo la waaw moo tax xale yi ni di wax ne salaamun sawqan li kulli bilaadil muslimina ndeysaan ñu ngi ëmb jàmm séddale ko bilaadul muslimina yëpp ci penkook sow ndeysaan wallaay ndeysaan est-ce que loolu de am na solo am na solo ndax <laughs> xale yi li ñu way non beneen affaire la ndeysaan léegi salaamun baat bi am nuyoo la buñ koy waxante day tax ñu am jàmm wala jàmm moom daa am nuñ koy waxee am nu ñu koy jëfee waaw dañ koy wax ba noppi mhm. te di ko jëf te di ko jëf maanaam ci nga naan salaamun hmm. da nga ko koy wax hmm. yéene ko ko te dox la ko ko may hmm. li koy may mooy fexe ba sa làmmiñ du ko lor fexe ba sa loxo du ko lor rek mu am salaamun tubarkàlla bu boobaa de day daal di mat sëkk nag loolu la yonent bi dafa mënoon jàngale sëñ Mbàkke ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne daal hmm. al muslimu hmm. man salimal na hmm. min lisaani wa yadi ku fexe ba julli li mucc sa làmmiñ ak sa loxo may nga leen jàmm kon baatu salaamun bi dafa mel ni bi nga waxee muslimu dañoo xaw a nuroo nga waxaat man salima ñu xaw a nuroo waaw baat yooyu yëpp daa mel ni am na luñ bokk de euh, génn kër lañ génne dañ koo tasrif rek waaw waaye benn benn benn benn génnuwaay benn mm-hmm. masdar lañ am mm-hmm. salaamun mm-hmm. assalaamu muslim muslimuuna islaam yooyu yëpp benn baat bi la bokk salima rek lay teg salima Eh, am na solo oustaz damaa dégg ñu ne aljanna ñoom bu ñu fay dugg salaamun rek la ñuy wax ñu wax assalaamu waaw eh, loolu nan la demee ba foofa ak yow guri ci am ñuy wax salaamun kese boo ne assalaamu boo ci bokk alif ak laam hmm. mooy yàlla na nga am jàmm ndeysaan ku dugg aljana boo ne ko yàlla na nga am jàmm mm. xamul li xew mm. ndax foofa la jàmm yem mm. kon ku dugg aljana moom am na aljana am na jàmm ba noppi moom salaamun rek xawlan min rabbin rahim ndeysaan waaw kon fi ne bu ñu fa dugg a gudd nii bu ñu nuyoo waruñoo wax salaamun asalaamu la war a wax asalaamu aleykum la ñu war a wax d'accord bu ñu ñaan nii nag man ngaa wax salaamun jublu ci ñaan ak yooyu jeex na tarkal wallaay ndeysaan est loolu kat am na solo eh. <laughs> jërëjëf oustaz kon ñoo ñu nga jot a jukki ci nuyoo yi ñooy yóbbaale ñi ci des xam naa ku bëgg a lim ñëpp bëdd na set duñ matal inshallah <laughs> am na solo am na solo tabaraka tubaarkàlla na ngeen def ak coono yi. noo ngi góorgóorlu di sonn. bàyyi nañ ci jàmm. waaw noo ngi ci jàmmi ndongo. di sonn ak ni ci jàmmi ndongo. waaw ah, ñaari baat yi nga wax yëpp de xaw naa doy waar. Hmm. am jàmm am jàmm te amoo xaalis. waaw oustaz fi xaalis ba noppi am jàmm. ba noppi am jàmm. <laughs> waaw ah, waaw jàmm xam nga jàmmi ndongo moom. moom du am xaalis waaye am na jàmm. <laughs> <laughs> ndongo moom sëñ Mbàkke eh. bu ko aw xët dalu nangam dalu ko rek moom daan ne am jàmm ndeysaan moo tax jàmmi ndongo mooy am mu ngi ne tekk daal waaye nag amul xaalis dëgg la maag Pape Dieye def ne buñ xaqataayee nga ne ñiy jeexaluñ dara te fekk <laughs> lu suukar baraada yoruñ ko <laughs> xam naa loolooy jàmmi ndongo kon loolooy jàmmi ndongo ndeysaan léegi jàmmi sëriñ nag mooy lan jàmmi sëriñ mooy day am xaalis hmm. am daraja hmm. am barke hmm. waaw ba noppi am mbir geer mooy jàmmi sëriñ ndeysaan est-ce que ndax sëriñ bi ci gën a sonn. Mhm. mooy sëriñ bu amagul barke. Hmm. est-ce kon de oustaz baat bi may laaj foofu mooy lan mooy barke. barke mooy mooy loo xam ne lu mu dugg. Hmm. day sakkan. Mhm. loolu lay barke. Mhm. bu kolof daan wax dong. Hmm. day wax rek lu sakkan. lu sakkan lu sakkan nga yorub junni. di jaay di jaay mu tëx a jeex. junni ba daa am barke. xanaa sakkan ak bari kon bokkut. déedéet. <laughs> wuute na. waaw naa nga mën naa bari sakkanut parce que mm. barke nekku ci ndeysaan xam nga bu njëkk boo yoreb junne faj ci soxla mm. dëgg la de ah wallaay léegi oustaz mu la nekk sa kër boo ko joxoon junne tey balaa ngoon a jot mu jeexal ko wallaay junni kay moom daa mel ne rek doonatul lam na fekk aka baaxoon fekk baa barke bay dañ ah. barke baa dañ baaxoon na lool looloy looloy barke am na solo oustaz léegi xaalis moom jamono ji ñu toll dafa mel ne dañ koo jiital ba léeg-léeg sax nit am xaalis ba noppi ñàkk jàmm nga xam ne waa ji dara waaye ku ko gis yërëm ko. waaw loolu nan la def ak jàmm. dafa fexe ba moom dafa sàggan ba xaalis mag ko. Mm-hmm. maanaam ku sa xaalis mag. Mm-hmm. tey mu sonal la. Mm-hmm. ndax moo lay yónni. moo lay def loo. dëgg la moo lay tere. dëgg la moo lay duggloo fi ngay dugg. parce que daf laa mag. boo ko magee nag. loo ko barile barile bari du la wàññi dara. ndax yaa koy yónni. xaalis nag suñu mbàkke di ko yónni. dafa tànni mu di la yónni. mu di la yónni waaw mu di la yónni cest à mu di la yónni mooy moo lay def loo. naa lay netti la ñu masi di tukki boobu ñu ngi jël ci oto yi gaa yi jël ndeysaan euh, ñu dab jenn waay ju dem hmm. apprenti bi mu ne apprenti barab sàngam laa jëm hmm. apprenti bi ne ko indi mille francs hmm. mu ne ko huit cent laa yor mu ne ko fayal neuf cent te yéeg mu bañ mu bañ taxaw ci taxaw ci huit cent yi waaw ñu ñu ñuy départ ma ne ma ne apprenti bi nee ko mu yéeg jox la huit cent ma tegal ko ci cent laa ilaaha illallaah waaw mu yëg oto bi dox mu bi muy fay mu génne bio 2000. moom waa ji. waaw. <laughs> te booba te booba boo demee yow mi koy mottali yoroo 2000 kat. déedéet. man kay defe naa 300 la des woon. ndeysaan. ndeysaan mu yénnew deux mille apprenti na ko waaye lii nga ma ma ko jàppal ci lii rek ma ne ko waaw sëñ bi mu naa ah, ma ne ko yow sa xaaj bi daf laa moom mhm. te gis nga fii ñu la romb nii ci timis gi nii mhm. bu la fi jenn waay fekkoon mhm. dana la xaañ nangul sa xaaj bu ne pourtant wax nga dëgg de ma ne ko bul ko nangooti la dëgg li ngay kopp koppal euh, jëru ko boobu bu boobaa dootu ko jarati jeex na waaw naya nay ci ba doo ci lekk doo ci naan doo ci dimbalee loolu day mujj metti loolu daal benn ndaw ko ndaa dafa génn àdduna ci dëkk sàngam dégg Euh, ñu yóbbu ko ci docteur ñu seet ko nee dafa xiif. <laughs> xiifa ko rey xiifa ko rey. Ah. ñu làmbatu ba ji fekk ci fukki junneeg benn. allahu akbar. seet seet waaw fukki junneeg benn. xam nga li nga wax ni oustaz kuy dégg fi mu ne day mel ni ay lépp. waaye oustaz ku ko ku ko firi rek mu yaatu loolu ci dundu doomu aadama yàlla xam na ne dëgg la de léeg-léeg ku tumuranke te nag te kat luy dindi tumuranke ci ay loxoom <laughs> ci lu wér waaw lu koy tàqale tumuranke mi ngi ci loxoom waaye moom tumuranke gee ko neex muy kopp koppal rek ndeysaan ndeysaan dañoo mas a nekk gàmm ak Tiwaawan Hadj Abdoul Aziz dégg ñu ne am na kuñ jël xaalisam. ndeysaan muy xaalis bu bari ndeysaan mu ne xam naa ñi mu ma cee de waaye daal. waaw. daal ëpp na nag. xaalis bu toll noonu. nu ko nit di yore di waaw ñëw burdu yor bu toll noonu. ndeysaan waaw. Hmm? waaye daal tabarkàlla. ndeysaan allah. am na solo comme li nga wax léegi rek. am na solo kon loolu mooy xaalis bi ma indi woon foofu. dugal ko ci barke yooyu. mu des beneen laaj bi ma la laaj ne la naka naka coono yi nga ne yéen ngi sonn rek. waaw lan mooy coono kon. coono mooy suñ mbàkkee di kër këri ci penc mi. Mhm. pour def fi dara. Mhm. Mhm. loolooy coono yonent bi laa wax ne. sallallahu alayhi bala ngeen jóg na ngeen fi def ñett. ñett. bala ngeen fiy jógee. góorgóorlu la ma def fi ñett. sadaqa jaariya benn ilmun yuntafau bi ñaar wala dun saalihun yaddu la ñett ñett yi def leen ñett yëpp wala ñaar yi mbaa minimum def leen benn lan mooy sadaqa jaariya sadaqa jaariya mooy suñ bàkk nga fexe ba samp fi daara mbaa gas fi teen ah samp fi jàkka wala dispensaire wala hôpital boo ko mënee wala wala wala loolu mooy sadaxa jaariya mm-hmm. nga xam ne nga jóg fi du tax moom mu jóg fi ndeysaan allah mm-hmm. loolooy sadaxa jaariya nga xam ne moom boo fi jógee loolu dafay des di dox dafiy des rek di dox di jariñ ñeneen waaw allahu akbar jumaa jee si njaareem mm. ba ko maam suñu tubaab sampeeg léegi wallaay ndeysaan wallaay euh, à peu près rek par bis ñaataa fay julli waaw yàgg na boori 1922 léegi kay euh, yàgg na lool boobaak léegi mm-hmm. imaginel nga ne ñaata fay julli loolu fay julli ku sëlmal ku sëlmal bu fekkoon tubaab bi daf lay wax ne ku sëlmal nga am trois mille francs mhm. boobaak léegi boo ko dajalee waaw ku ko dajale doo jeexal ke du jeex na mhm. loolu sadaxa jaariya la te suñ borom noonu la lay dajaleele la fa nekk nit ñi di ko ah, jariñoo tabarkalla tabarkalla xanaa kon li olof naan njariñ loo fekkee du ay eh, wax ju yàqu la nga xam ne danaan alal ji moom yow rek yaa koy lekkal sa bopp jël ko def ko ci compte rek wala tabaxi immeuble di louer loolu sharia da koy tere <laughs> ca alal si nekk loon saabu wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah ndeysaan waaw ndeysaan loolu mooy sadaxa jaariya mhm, ndeysaan lu am solo la beneen bi mooy mhm, ilmun yuntafa bi mhm. xam-xam bu ñuy jëriñoo xam-xam boo xam ne bàyyi nga ko fi. Mm-hmm. te mi ngi jëriñ nit mm-hmm. moo xam mécanicien nga woon. Mm-hmm. moo xam tôlier nga woon. moo xam jàngalekatu diine nga woon. moo xam professeur anglais nga woon. moo xam waaye daal na xam-xam bi nekk luy jëriñ nit. est-ce que xam-xam bu mu di doon na doon buy jëriñ nit. na doon buy jëriñ nit. ndeysaan lu am solo la. tey suñu tegee kasetu Sëñ Sam Mbaye. ndeysaan wallaay wallaay. mu waxtaan ba jeexal. sunu ba ne ko sa kaset sàngam. Mm. teg nañ ko te mat na nangami minute. walla te benn minute ci BS BSD. Hmm. defe naa nu ñu ko tuddee waaw BSDA. BSDA. Hmm. benn minute bi. Hmm. juróom-ñett juróom-ñeenti dërëm la xaw ma yu mel ni ko yooyu. waaw léegi nag bu fekkee. <laughs> suñ boroom moom ca BSDA moom. waaw ca BSDA moom. <laughs> Ah. te juróom-ñeentam. ndeysaan da cay dolli juróom-ñeent. waaw. loolu loolu mooy euh, ilmun yuntafau bihi mhm. xam naa oustaz kon suñ borom nag war nañ koo defal promotion moom it ay mbiram ba ba gars yi di def ndax moom comme man naa fay ah, te mi ngi fay am solo waaw ñu defal promotion ba ñu yëg ne yàlla mën naa fay ñuy def ndax moom promotion yi ñu ngi fi dafa àggul ci gars yi mhm. ndax gars yi ñoom it déglu déglu yooyu pour am ca yooya daf mhm. leen yitteelu ndeysaan ndeysaan waaye promotion mi ngi fi min suratil fatiha ila suratil naas lu ne yàlla wax na ko ak ñoom lu ne dig nañu ko lu ne dig lu ko. ndeysaan ndeysaan est-ce ndax bëgg rek. Mhm. ñu dugg ci promotion bi ndeysaan dafa mel ne waxoon nga fi ne Cheikh Sidaaju Malick ne woon na ba mu jàngee ñu ne ko suñu borom wax ci alxuraan ne inna allaha laa yudiiu ajral muhsinin wallaay mu ne moom dootu noppalu ko jeex na <laughs> inna allaha laa yudiiu ajral muhsinin mm. mu ne dootuma nopp comme yàlla neen daal ku fi rafetal ma fay la inna allaha yudaafi an allaziina aamanu mm. mu ne noppi naa tiit waaw tiitatuma dara waaw allahu akbar <laughs> ku ne am nga ab boo dul weesu. jeex na jarul tiit jarul tiit. <laughs> oustaz beneen bi ci topp ilmun yantafa bi bu ci topp. bi ci mooy wala du saalix wala du saalix. Mm-hmm. foofu nag suñu bàkkee. Mm-hmm. ñu ngi def def ne wala du mm-hmm. ñu def na fa la yem. mu ne saalihun. ñu def na fa la yem. mu ne mu ne ñu def na fa la yem. mu ne lahu. yadu la ndeysaan. ci li muy tënk. parce que doom wala du saalixun yaduun lahu. na doom ju baaxut bu ñaanlee baay mi du ca jot. Hmm? Hmm. doom ju baaxul maanaam. doom ju baaxul. Hmm. bu ñaan lee baayam. baayam du ci jot du baayam du ci jot. lu tax du ci jot baay ju baaxul ci bu ko doom ju baax ñaanalee du ci jot. lu tax ba ñoom ñaar duñ ci jotante te ñaan gi moom yàlla mii maye mën a jël ci kii jox ci kii. bàyyi mbag ba bàyyi mbaya nga ca ca. ca ca mbàkke ca mbàkke <laughs> ndeysaan. bàyyi mbaya nga ca maa ngi yor téléphone fii mi ngi yor téléphone. mbàkke ba sama téléphone am musique danaa jot bàyyi mbay. boo amul réseau amoo crédit doo ko jot. moom nag bu ko bos ma defoon. doo ko jot. <laughs> moom it bu ñàkkee réseau. ñàkk sart doo ko jot. <laughs> parce que waladun saalih yad'u lahu. Mhm. fële ma kaana abuhuma saalihan moo koy firi. Mhm. kon ñoom ñaar ñëpp day euh, maanaam salaaxiya gi day ne ci ñoom. salaaxiya day ne bi door a dugg. très bien xaayam ko dégg séeréer. macha allah macha allah. kon kon oustaz kon ñett yi moom lañu war a sonne ba kenn ku nekk bàyyi ko ci àdduna. ko kenn ku ne fexe ba bàyyi fi ñaar. Mhm. ñett yëpp boo ko fi mënee bàyyi bàyyil soo mënul bàyyil ñaar mhm. soo mënul minimum bàyyil benn ndeysaan ndax sëñ Mbàkke mm. bu ñu fi doon jaay benn benn benn entreprise mhm. wala benn société mhm. di ko privatiser nga jënd ci actionnaire yaag Saliou ak euh, sëñ Pape Dieye ah ndeysaan man ma toog bu at mi jeexee buñ leen di jox ya ngeen ci amoon wallaay man damay seetaan rek waaw ñeetaane ñeetaane léegi nag doomu aadama ak dundam dafa gudd lool téeméeri at dañ naan aw. wallaay day bari ba yéem ñi. jeex na surtout jamono yi léegi jii. léegi nag bu fi jógee fu mu jëm sëñ Mbàkke dem day dem tëddi. Hmm. ndeysaan. bu fi jógee. Hmm. day dem tëddi. day dem tëddi. léegi nag fu muy jëleeti. Hmm. yi mu doon dunde yi doon dunde <laughs> ndeysaan waaw. te falaasa la. Eh, mu ngoog guddul récolté ci dara. ma nga tëdd rek. waaye su fi bàyyee koo xam ne. saa bu kii suñu borom ne ko pëkk pëkk. yónnee nañ la lii. lii mandat la mu jóge barab sàngam. ndeysaan lii mandat la mu teg mandat dafa neex na suñu mm-hmm. bàkki. dëgg la yee mandat man maa ngi la koy nettali. Mm. boo jotee message yi da ngay kontaan. Eh, cee bañ ci gaa yi yónnee. waaw réew. ndeysaan cinq cent mille. ay bëri. cee tëtu ah loolu de loolu de du xaalisub gone moom. nga yónnee yónnee yi léeg-léeg ay lañ la yónnee ay dix mille. waaw bu dee xale yi ñu yónnee nii. waaye boobu moom. Mm. damay wàññi ba mu yàgg rek waaw man mbaa du kii dafa jóom bu dee xale yi ñu yónni. waaw mooy yónni waat yu ndaw ndawaan yi. dëkk bi tool yi kur yónni waat ndaw yi. waaw gone yi moom yooyu la ñuy indi ay cinq mille ak ay dix mille ak nga ne ko ay ko jàmbaar nga li na. jeex na <laughs> waaye mag ñële. waaye mag ñële. c'est <laughs> ñoo la indil million wala genn wàll. nga xam ne fi mu ña nekk Barsax it noonu ñu xaare mandat yi. très bien. ñoom lu leen di mandat. li leen di mandat ñaan ca la bokk. ñaan waaw. Mhm. ab sarax bu am njariñ ca la bokk. Mhm. sarax bu am njëriñ. waaw lan mooy sarax sarax rek bu ñu ko waxoon ma comprendre mais bu am njëriñ gi laa. comprendre waaw barki de mujj na def na ma damaa bëgg yi ñëw wàcceel ma kaamil. Mm-hmm. ndeysaan ma ne ko. Mm-hmm. da ngay lu am solo. Mm-hmm. mbàkk si la këram a nga ne mu ne waaw ma ne nga àgg fa. ne ko mbàkk ñaanalal góor gi. ndeysaan te dem ma noonu laay def ma ne ko noonu ngay def. waaye su fekkee da woo. oustaz puy ñu am waaw wala ñu ñëw ci kër gi équipe boobu wàccel la équipe boobu <laughs> baax na de mun naa mën a ko waaye bii day mhm. mooy dàq bële mooy ëpp tiyaaba wallaay wallaay wax nga dëgg oustaz waaw tey kon daal ña nekk fële waaye faaw nag ñu koy jaarale ci yoon wuñ ciy jote mu am njariñ gis nga bu fa sa waajur nekkee ndeysaan mbàkke wallaay ña ngay dox dox bu yàgg mhm. ndeysaan am na ñoo xam ne buñ tëddee ba léegi ña ngay dox boo saraxee sarax bu mag mhm. Ah? Mm-hmm. mën naa sarax mën naa dem mm-hmm. doon ab taxi clando mm-hmm. ndeysaan mën naa dem dem doon taxi bu bees taxi bu bees ndax ñeenti téeméeri at ah ndeysaan ku ko yor taxi mën naa mu màggat allah léegi nag saa boo ko saraxalee sarax bu mag rek ndeysaan yëgal ne yónnee nga ko ndeysaan xëy na beneen taxi bu bees muy dawal rek ba ba muy àgg ca ar ardul mahshar wallaay ndeysaan ci ci ci ci misaal ndeysaan su fekkee ne dangaa ngaa sarax bu ndaw ay ñaar dërëm ñoom seen yooyu. Mm. loolu mënu ko yóbbu fen mm-hmm. dafa tuuti. torop dafa tuuti waaw. maanaam sarax daal daa war a am njëriñ oustaz. yonent bi nee na. Mm. sallallahu alayhi wa sallam. Mm. bu loree fa mu jógee rek. Mm-hmm. jëriñ fa mu jëm. dëgg la ndeysaan. te mais oustaz loolu dafa raar léegi gis nga ñiy yalwaan ah, boo gisee ku leen sarax wu mag. da ngay gis dafa mel ne rek da nga koo dóoru yat. xaaral ma léebalaat la. ayca. ñaari silmaxa dañoo nekk fee ca booru ma ma jëy sàll. ndeysaan di yalwaan ba mu yàgg kenn ki ne mborom ji waaw bàcc. Hmm. Hmm. mu naa mun ne ko tubaab baa ngi liggéey billet. mu ne ko billet lan. ndeysaan. <laughs> mu ne ko billet xaalis mu ne ko yow yaa tardé <laughs> loolu tubaab bàyyi ko depuis quatre-vingt-quatorze. Oh, nga xam ne ñoom kenn du leen ko sarax moo tax. loolu la ko wax daf na ko yow hmm. da ngaa tardé. tubaab bi liggéeyatu ko depuis 94. waaw moom sax ki koy laaja ko tane ndax moom boo demee moo ko mujjee laal ba naan ko <laughs> mbàkk boo rombee ba leen mm-hmm. rombee mm-hmm. sa yaram day daw oustaz loolu mooy dellu ci li ma laajoon ni promotion yàlla boobu muy def waaw ñu médiatiser ko ko waaw ndax kii saraxee di saraxee euh, maanaam lam poosam joxe junni bu gëmee ne yàlla nga ko dencal te dana ko fay wala kam ko yéene tiyaaba ja dana ci jot loolu day sawar ci def ko waaye bu jàppee ne da koy def par la manière nii rek danaan man awma weccat gis nga ni ko alayhi salaatu wasalaam jàngalee suñ mbàkke alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne hmm. sarax du wàññi wërsëg hmm. sarax hmm. du wàññi wërsëg tey su ma la joxoon mhm. deux millions mhm. nga jël benn bi def ci banque bi mhm. jël benn bi yore ñaata million nga am ba tey deux laa yor rek parce tey deux nga yor benn bi dama koo denc ci banque ba rek ñu jox moo ko léegi nag gis nga niveau boobu mooy soo soo amoon fi de deux millions saraxe benn bi dangay gëm ne ci banque ba nga ko def ah. ma nga fa di la xaar jeex na allah niveau bu nag la la la yonti bëgg nu àgg fa. Mhm. xaw ma kañ lañ fay àgg. sallallahu alayhi wa sallam defe nañu ko nu ne nag. nu ne. nga xam ne ñun léeg-léeg nit ki joxe ci ngis la koy gënal nit ki wanewu wala yu demee noonu. moo koy gënal mu saraxe te yàlla tax. ndeysaan ceet te lu am solo la léeg-léeg ñu ne dañuy ñaanal góor gi xam naa bunt bi da moom bunt bu am solo la. Mhm. dañuy ñaanal paa bi wala ñu ne dañuy ñaanal maire bi dajaloo daan ko dañ koy wàcceel kaamin lu am solo la ci bu ñu koy def at ba at wala yu demee noonu mm-hmm. waaye oustaz loolu itam ci xeeti sarax yi la bokk ndax boobu baax na wala mënoon naa gën a baax waaw xam nga boobu mooy nga ne sa yaay damaa bëgg nga woor fukki weer ak ñaar ah, bu dee bu dee ne fukki ñaar yëpp yaa ngi door a woote waaw mm-hmm. fekk <laughs> waaw fukki weer ñaar ba mu mat ko de moom loolu lay nuru mu door mu door def ñaanam yaay ji door a añ door a kii nangam di mm-hmm. door a dog kooram mu wuti waat deux mille dix-huit kon daa war daa war di am di jege boo jullee ñaanal ko bu sa xel nekkee ci moom nga ñaanal ko léeg nga dem fa tiim ko ñaanal ko rek hmm. mu tëx a dakk mukk tëx a dakk mukk hmm. ndax añ ak reer ak ndékki ñoo fi nekk hmm. am déet añ ak reer ak ndékki kon nag fexal bu mu dakk rek waaye jëkk ba ak mi del siwaat ca bis ba nga door ko defalaat. Hmm. ah diggante bi loo bëgg. incha allah am na bëgg mu wor. am na solo wallaay wallaay jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy déglu mbind lu baa nekk noonu donte xaw naa caa yàgg waaye day buntu yu ama am solo yoo xam ne danañ ko gën a yaatal tax ci yeneen jotaay yi nekk suñ kanam. Hmm. waaye xibaaru daara jàng may xaar oustaz ma doore ko ci eh, génn àdduna ak Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si almaktuum. Hmm. bés naka tey jii la woon ci at mee ñu génn. di tombé kon ak mu def at ci biir suuf. góor gu tedd googu léegi bi nga ko tuddee am na bayit woo ma koo introduire bayit bi sëriñ jërëjëf sëñ Mbàkke sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy mhm. al Maktoum ndeysaan daf caa wax ne mhm. wala xad wulittu ndeysaan waliiri daan bi wilaadati ndeysaan bi wilaadati fii manhaji tijaani Allah wali annani summitu mhm. min amrin bihi fa jazal ilaha fatan bihi sàmmaani ndeysaan <laughs> bàyyam lay wax nag. ndeysaan ne yàlla na ma yàlla fayal sama baay mi ma tuddee suñu Cheikh a Tidiane. si almaam wallaay tànn tànnal na ko turandoo bu baax. waaw. <laughs> ndax baayam. Mm-hmm. Euh, sëñ Babacar si. Mm-hmm. Euh, moo ne woon Cheikh Tidiane yi lës yi. shaa'at tariqatuhu. Mm. baynal bariyati burhanul barahini. ndeysaan tey. léegi loolu loolu la ko wax. Mm-hmm. mu gane àdduna nag mu tuddee ko ko. moom nag mu ne kon mi ngi ñaan baayam. yal na ko ko yàlla fayal mu ñu ko tudde kooku noonu allahu akbar utal na ko turandoo waaw ndeysaan ndeysaan xam nga diwaan la am bu am solo sëñ mhm. Mbàkke diiwaanu sëriñ Seex walaay ndeysaan nga xam ne xasaay maanaam mbindam mii lañ ci dajale waaw mhm. fa dégg nga maanaam fa ilayka yab na mahammadin naadaani naadaani ndeysaan siyamun mhm. tuhaqiqu jawharal insaani ndeysaan wallaay ndeysaan mu ne ko li ma woo li ma woo ci yow en tant que philosophe bu rëy sëñ Mbàkke. Mhm, ndeysaan sëñ mhm. philosophe bu rëy. waaw bu mhm. ne ko nag li ma woo ci yow. dafa am lu may xeeñtu ci yow lu ma jàpp ne mi ngi ci yow. mooy siyamun. tu xaqiqu jawharal yi niteel moom a ma tax a bëgg moo moo ma woo ci yow. ndeysaan ngi wax ci xasidaam gi. ci ci diwaan boobu sëñ Mbàkke. lawlaa masaalihu haada diini ah mu ne su fekkoon diini soxlawu ko ah ak lenn ci ñi nga xam ne kum ci taseer war a faj sa aajo mu ne la surtout mimman yaisu dëhra muhtajiban ah fii amaqi sijni an haadihi l xurafaati ndeysaan ndeysaan mu ne kon du ma génn kaso mu ne kon du ma génn kaso foog damay tëju cib kaso rek maanaam loolu sax la mujj def mhm. ba tax ñu tuddee ko maktuum maktuum nëbbutu rek nëbbutu rek boppam rek mu ne li tax mu nëbbutu nag xuraafaat yi ci àdduna mhm. ku leen munta faj mhm. da toog ndax doo leen gis boo ko wutee noppalu waaw ndeysaan boo ko wutee noppalu wallaay ndeysaan euh, rahmatullahi alayhi wa radi anhu ndeysaan oustaz góor gu baax boobu kon bis na ko tey la fi jóge woon. waaw doon koo xamante ne wax dëgg yàlla ni nga ko waxee. Mm. boroom borom ma la. ndeysaan jàngalee nu ne. Mm. waxee nu ne. ba noppi oustaz euh, léegi rek maa ngi ciy xalaat di wax ne sëriñ Cheikh da li ñuy wax léegi naan Serigne moom. wërta yam rek euh, ci euh, jàpp ne daal mbir mi ci daara ji la war a yem mm-hmm. daa war a jël la ca daara ja dugal ko ci àdduna ngir doxal àdduna sëriñ Seex wane na loolu mm-hmm. complexe boobu moom royukaay la ci ne wane ne loolu dafa war a dañ ci ñun wallaay ndeysaan ca mm. ga ndeysaan nee na dafa am bi mu amee oto. Mhm. lu ne la dégg. ndeysaan bi mu amee téléphone. Mhm. lu ne la dégg. Mhm. te loolu munta ñàkk. te loolu munta ñàkk. foofu la ko tàmbalee woon. wallaay wallaay. yëg nga ne amoon na parti. waaw di xëccoo réew mi. yëg nga fa mujj. waaw. yëg nga ne baykat la woon ci mbooro. di tey di bay tamaate. di bay gerte di bay nàngam. ndeysaan. di ko jëlal boppam di ko indi mm-hmm. ci ci dëkk bi di ko jaay ndeysaan yooyu yëpp lu nekk jaar na ci mm-hmm. jàngale ndeysaan ah mm-hmm. conférence wallaay en français en wolof nangam nangam wallaay lu nit war a wax rek wax na ko dugal loxoom ci wàllu développement ba tey ba tey ndeysaan soo ko siim gii mhm. loxo ma ngi ci woon ne lëgg tabaarakallah rahmatullahi alayhi wa radi anhu amin yaa rabbal alamin hmm? amin amin walaay ndeysaan amin kon nag oustaz ñu di ko fàttaliku euh, ak dundam dafa mel ne euh, ak i jëfam lépp am njàng la jamono soxla na ñu jàngaat ko ba noppi itam am ñu teg tànk fañ fi nga xam ne fa la tegoon tànkam walaay ndeysaan mhm. benn bi si xasidaam bi hmm. daf ne algarbu hmm. algarbu asbaha aalaman majnuuna mhm. ndeysaan nee na nee na Occident daa xëy rek dof. Hmm. <laughs> asbaxta alaman majnuna waaw mu ne hmm. dafa xëy dof. wallaay ndeysaan. ne. waaw dof yi nee nañ. waa <laughs> waa Occident ñooyu yàlla moom tudde leen ñu nitoo di ko ñi. algarbu asbaxa alaman majnuna. ndeysaan. bi shakli jununihi. maftuuna. nee na gi ci moom nag ay façon la. ba ndof ga fitnaal ñi nga xam ne xàmmewuñ nit ak dof ndeysaan waaw <laughs> luy lu yéeme la oustaz lu yéem xam nga moom la sëñ mbay mi ñu doon fàttaliku démb moom it doon doon lépp ci ne waa xar bu goog ngay wax ak ñun waaw nee nañ dof bu mag laa bu ndaw nee na nag dof bu dof bu ndaw bi moo yor jaasi ji waaw mooy ñun Afrique nga xam nga développement moom ci suñu loxo la nekk wax na dëgg de nee nag bu mag bi bi ñu jàkkaarloo bëgg a xeex bu ndaw bi génnee jaasi ji mu mag bi da ko ne ginnaaw jaasee mën a daggaate asamaan mbar mi koy lekk nee na bu ndaw bi sànni jaasi ji bu mag bi jël jaasi ji topp ko jeex na <laughs> nee na la ñu noonu la ñu occident naxe wallaay sëñ Sam rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi ndeysaan ñooñu loolu la ñu jàngal wallaay ma kañ la ñuy yeew wallaay wallaay ndeysaan nga noonu tubaarkàlla mm-hmm. Euh, xam naa lu ne wax na ko. wallaay ndeysaan. lu ne bind na ko Serigne Cheikh ndeysaan. ah wallaay. nee na it raw naa ñu bari. Mhm. Mhm. waaw mu ne raw na ñu bari. raw na ñu bari de tubarkalla ndeysaan jàngale jàngale jàngale lu bari oustaz bokk na ci loolu itam li ñuy wax fi mu ne bennoo jullit ñeeg yooyu te sax muy tem boo xam ne Sénégal moom ñëpp bennoo nañ wax dëgg yàlla euh, te itam loolu lu yàgg la mm. ndax euh, suñ borom daa mel ne bëgg ñu bennoo tax kilifa yi ñu fi roy mu boole leen menn maam pour bëgg ñoo won nañu bu leen leen tàqale ndax boole naa leen moom mag moo tudd ci Sénégal waaw suñu Cheikh toog naag moom mm-hmm. sol naw dàllam mhm. taal na otam dem ca mhm. ndeysaan la ah? wallaay bu la nettalee diggante moom sëñ Fallou mhm. da naan fii rek la dëkk bu dee sëñ Abdou Lahat nga ne akkoon ah, kay fii la wallaay mook sëñ Saliou noonu wallaay mook keneen noonu mook sëñ nag beneen affaire la dëgg la ñoom dañoo bokkoon di génn di bokkoon di bañ nee na këram njëkkee dégg sëñ seex Mbacke ree daf ne àdduna tukki na waaw ci tugal <laughs> ci tugal <laughs> nee na mun na ko yow ndeke da nga ree sëñ Cheikh laaj ko ko ndeysaan sëñ Cheikh Tidiane moo ko laaj sëñ Cheikh moo ko laaj sëñ ndeysaan mu ne ko Cheikh foo gisee ku dul ree wallaay ndeysaan hmm? quoi Sénégal de mosuñoo gis sag mu ne ko foofa ree xaju fa allahu akbar <laughs> ah man di jaaxle naa seet réew mi ree xaju fi mu ne ko loolu la ko wax ndeysaan mu ne ko réew ma ree xaju fa wax xaju fa hmm. ndax loo wax lu mu tuuti tuuti mu ne ko kaamil hmm. boo fa ree àdduna tukki wax na dëgg waaw waaw ñun moom du xam nga mi ngi nii te loola at yooya la asemaak léegi nag. waaw bi whatsapp xewee eh, ak yi ci aju facebook xew ñuy photo yu dugal rek. ndeysaan <laughs> li ñu daal seddut. yal na yàlla. amin yokk ko yërmande. amin yaa rabbal alamin waaye fa lépp ci kawam. amin yaa rabbal alamin al mustarsidoon wal mustarshidaat yi. Mhm. tabaarakallaahu ñëpp rek. ndeysaan waaw. ndax suñu cheikh aalimiyatuhu mhm. daanaka du lu ñuy. dëgg la. lu ñu contesté. dëgg la muy lu am solo oustaz ñu jaajëfal la ci bu baax a baax di ci ndokkeel itam waa réew mi yëpp waaye itam ni nga ko ñaanale rek looloo ci am solo. waaye ko fàttaliku rek sa xel dem ci eh, xew-xew yu tiis yu tegaloo yooyu wàccoon fi ci atum 2017. ndax itam rakkam ju baax ji sëriñ Abdou Aziz Sy Al wuutu ko fi ndeysaan daanaka juróom benn weer la rek oustaz ñoom ñaar ñëpp daal di bokk at moomu dem dëkkaale ji ak seen borom. loolu nag ci njàngaleem suñ borom la. Mm-hmm. moo xamante ne na cee jàngi lu baree bari. baree bari tubaarkalla mm-hmm. jërëjëf suñ bàkk <laughs> am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel xam naa dinañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu ci tomb boobu ndax dunduk sëñ Seex moom waxtaane ko ci ay minute mëneesu ko inshallah waaye tey bis la buñ koy fàttalikoo ak ñaanal ko mhm. tomb bi ci topp ci wàllu actualité bi oustaz ah benn hélicoptère la de boo xam ne daal nee nañ dafa daanu mhm. euh, bàyyi ko woon fële ci Ziguinchor mhm. jëmoon fi nga xamante ne nii mooy Dakar waaye bu mu ñëwee ba ca Toubacouta fa ñuy wax Mesere foofa la daanoo lu mal juróom-ñett nit daal cee ñàkk seen bakkan loolu tey ci euh, li nga xam ne moom la presse bi xëyee tey jii ci réew mi tomb boobu gën na cee fes mhm. loolu noo ñu koy jàngatale. waaw xanaa massawu ña ca des. ca mhm. faatu. Mhm. Euh, massawu ñi nga xam ne dañ caa amee gaañu gaañu. ndax. accident jaw dadul da doon lu tuuti. te xam nga sëñ Mbàkke liy naaw ci jaww ji ay hélicoptère avion yooyu. buñ xasee jóg ñoom daanaka tour de contrôle mooy yor seen yëf. ñoo yor seen yëf di wax ak ñoom defal nangam ak nangam. Mhm. Mhm. bu leen réeree rek réer. bu leen réere rek réer bu leen réeree rek réer. Mhm. waaw. ndax nee nañu appareil bi ci appareil yi gën ci Afrique duñ ko wax sax mais daanaka yi gën ci monde bi la bokk. sunu borom nag noonu lay dogalee. mën naa jékki-jékki rek dara ni cëpp. daal di xew. dëgg la rawatina nag doon jaale ji wala ngay yóbbu néew mhm. walla nga yóbbu ko bay ñëw mhm. yooyu yëpp mën na ci am mhm. ñu ngi masawu kon ña ci des ñëpp enquête nag dañ koy ubbi ndax appareil yooyu ñaar day am appareil bu cay nekk buy wax buy wax cest à diir buñ ko jëlee daañ xam waaw moom dana nettali li xewoon dana nettali li xewoon ndax paan la woon ndax nangam ndax nangam ndax nangam ñu xam ko. Mhm. waaw. Mhm. loolu daal moom ñu ngi masawu ñëpp. Mhm. yàlla na app yu sore. amiin yaa rabbal na fi am ci at yële. Euh, sore woon na lool yal na gën a sore. amiin yaa rabbal aalamiin waaw waaw amiin accident yi de oustaz loo xam naa njàngan moomu da ciy dugg rek bare ji ndax itam bu bu mu daan am ci tëli bi moom euh, li xew ci tëli bi ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. dañ koy jàngate ci anam yu bari. Mm-hmm. waaye bii nag tey bu xewee ci jaww ji moom itam <laughs> xam naa daal dogalu suñu borom yeeg ay nattoom moo noppeeku ci ñun rek. kon wala góor gi ñu doon waxtaane mm-hmm. daf ne woon nanu sang réew mi. waxoon na ko door a dem. di ko baamtu ci guddi ga sëñ Mbàkke ba ba ma ko kontee mhm. mat na juróom-ñaari yoon wallaay ndeysaan booba yaa ngi toog waaw waaw mhm. mu door nag nag buñ ko sangut dana sangu lu mhm. nu ko waxee buñ ko sangut dana sangu dana sangu daal ne te moom buy sangu deret lay sangoo allah si cheikh mi moo ko waxoon wallaay band yaa ngi fekk kasi bi nañu sang réew mi waaw wallaay waaye kero ba Shuayb waxee ci pénc ma dañ na ko ko asalawaatuka ta'muruka <laughs> an natruka maa kaanu yaabudu abaahuna aw an nafala fi amrina ma nasha fi ma nasha innaka anta la alimu rachid loolu lañ ko waxoon soo bi daa ba nag penc mu ne ko <laughs> yow daal yow mën nga fee julli nii di di julli ak sa di xam li xew ci penc mi <laughs> nag maanaam pour wan hmm. daara hmm. daara naka lay waxe ci économie waaw soxay bu yow mii. yow daal waaw. xamatoo sa bopp nag. jeex na ndeysaan. léegi nag daanaka penc bi noonu lañ jàppee. lañ mhm. jàppee wax jooju woon. waaw sëñ Cheikh ba mu ko waxee kenn laaju ko waaw ba ko waxee kenn laaju ko loo bëgg wax. déedéet. Mhm. waaye jaroon na julub délégation dem ne ko nu nuy sànge réew mi. Mhm. waaw. li yan nga gis. ndeysaan mu waxoon ci yooyu. moo tax fi ne xeet yi ñuy gis sëñ Mbàkke métti na. dëgg la dëgg ah dëgg la. saa bu ubbi ñu ne am na ku faatu. wallaahi Italie. am na ku ñu rey barab sàngam am na ko faatu Espagne mm-hmm. am na ko rek am na ko mm-hmm. mm-hmm. hmm? dëgg la fii ci penc bi nag wax naa la ne onze mois ngi nii yoo xam ne sept cent personnes faatu nañ ci tëli bi ak lu topp la ilaha ñu jékki-jékki dugg ci phénomène boo xam ne mooy dañ naan dañuy sàcc gone yi ku sàcc gone loo koy doyee hmm? oustaz loolu mooy laaj bi fi mu ne waaw loolu mooy laaj bi léegi nag xam nañ ne sàccum gone moom jombut mi ngi am waaye nag luñ koy doyee moom kenn ku ne dañuy demalee ko fekk damaa seetaan gone suñuy wax Baye Mbaye la xawma ci waaw Baye Mbaye xale bi théâtre waaw ndeysaan man dong ci néeg bi de ma xam fa xam ndax lan gone gi dafa génn mag ji na ko waaw lu xew tey da ngaa triste mm-hmm. mu koy nettali affaire yooyu quoi mm-hmm. ne ko nun lan lañ def Mhm. ban nooy sàcc. ndeysaan waaw. ba noppi daan ni daan nun xamuñu dara. Mhm. gis nga bàkk bi ñu xamuñu dara. waaw non àggaliwuma àggaliwuma vidéo ba. waaw wallaay xale xamul dara. waaw hmm. xale xamul dara. Mhm. nga xam ne boo ko am jëlal ma tàngal day dem jëndi. wallaay jëlal ma guro day dem jëndi jëlal ma cigarette moom loo ko yónnee day dem jëndi ko. parce que fitrat lay li fatara na sa aliha. ñoom seen fitra yàqoogul. ah Mbàkke ñuy jàpp naan ren dina gone gaag. sàcc na kook. ëmb na ko yóbboog am na ku ñu jàpp mu ak juróom benn gone ak ba fut jëmi gone yi wallaay kenn xam ko oustaz ah. kenn kenn waaye nag penc boo xam ne loo mën ci defit dañ lay maslaa denc la ci kaso bi weer ak genn wàll wala mm. juróom fukki fan fukki fan ak juróom nga génn dem ñibbi mm-hmm. loolu rek la de ndeysaan waaw yàlla na yàlla dimbali amin yaa rabbal alamin lu am solo la oustaz kon ci phénomène yi nga xam ne mooy am ci penc mi la accident boobu mi ngi noonu doon loo xamante itam yéeme na lool di eh, hélicoptère boobu nga xamante ne dafa daanu ak itam ñooñu nga xam ne ñoo ci wàccu liggéey yëpp yal na yàlla yërëm leen ni nga ko waxee xam naa dogali suñ borom yi daal la ngi noonu rek waaw am na itam beneen boo xam ne oustaz it eh, presse bi waxoon nañ ko ci ay bis gi mm. moom itam bokk ci xew-xew yi mm-hmm. di kooku nga xamante ne ku ñu jàpp la yoon teg ko loxo ñu war koo àtte mm-hmm. mooy moom daal xam naa bañ koy tuxale ci barab di ko yóbbu ci barab wala di ko tuxale ci barab di ko yóbbu ca kanam ña koy àtte ca la langaa mbiitoo ca ka doon dawal oto ba mhm. ba ab accident am ci ba am na oto bañ jàkkaa looloon ku ca faatu mhm. ak yu demee noonu loolu man jàngan nga ci def moom waaw man dama caa yem aha mhm. defe naa vendredi ci diggante mi di jàpp treize heures laa fa jaar ndeysaan waaw bi nga jógee fii di di dem bi nga jógee fii di dem xaw nañu féetee diir bu yàgg. ñu ne accident moo xew. bi ñëwee fekk nañ ku ñu muur. allahu akbar ay nekk fa ak yooyu. waaw nee nañ mooy beneen oto bi mu bi mu doon dajeel wala beneen daal. waaw léegi ginnaaw gi nag lañ tudd. Euh, da bañ da bañ nangam ki nangam. xam naa ña nga ubbi enquête. Euh, enquête bi xanaa dana wane. ndax oto bi li ñuy baare ci oto yi police ak. Mhm. diggante chauffeur bi gaa yi. Mhm. ndax dañ koo doon xel. Mhm. ndax yeew gi ni yeewu loxo yi ki ñuy yóbbu mm. ndax dañ ko bàyyiwutoon xel mm-hmm. toog gi kenn yi toog ak moom ci ginnaawam ndax mm. dañ ko bàyyiwutoon xel mm-hmm. yooyu ay pistolet yoo mm-hmm. xam ne xam naa gaa yi danañ ci incha allah ñëw yaatal ko ñoom ñëpp waaye nun daal ca lañ yem keroog ndax ci àjjuma ji ba ñuy dem daaru ci bu lañ dem yàgg nañ ma gis embouteillage bi ne tekk ñuy dox ba toll ci mm. tolloog ñoom nii gis leen ñuy lijjantee mhm. ah, la danañ ko topp oustaz xam naa incha allah comme ni ko waxee enquête beeg mbir yaa ngi dox ba fa ca mbir ya ñu ñëw ci incha allah. Mhm. moo taxoon ñu boole koo accident boobu amoon doo rewee nag ci actualité bi oustaz diggante Sénégal ak Gambie. Mhm. amaloon nañ li ñuy tuddee conseil présidentiel nga xamante ne bii mooy yoon wu njëkk muy am ci diggante ñaari réew yi. nga xam ne xaw tuuti kon muy menn réew ndax nuroo gi nuroo ay bind nuroo ko ay wax ba noppi itam digaloo ko aw digg woo xam ne daanaka jaxasoo na. nooy jàngate diggante boobu. waaw yal na yàlla defal ci président ndam ndax ndam li mhm. danañu fiite boor arrangé nu mhm. la ci jiitu mhm. mooy bante ñuy dagg tey rawale côté yooya mën nañ caa mucc leneen la ñol ñol jafay am mën nañ caa mucc wàllu wàllu yoon wa nga xam ne ca la ñuy jaar ci wàllu économie muy euh, pont boobu ñu fay jéem a jaarale. Mhm. mën nañ caaj mucc. Mhm. donc yu mel noonu bu amee. Mhm. sëñ Bakke. bu ñu toogee ñoom. góor gouvernement bi ak gouvernement bële. toog waxtaane ko mën naa am ñu am yeneen tomb yoo xam ne sax manga ca te xamuñu ko. yooyu mën caa amee waaye yi ma ci joxañ daal bu ci amee mën nañ caa amee ay retombées yoo xam ne. yu dana baax ci réew ma le baax ci réew mii ndax sëñ Bakke dem ci barab. bañ amee indépendance 1960. wallaay wallaay. réew yëpp yi dem. ñun hmm. mënuñoo fexe ba dem Casamance gii. ah métti na. boo àggee ci pamam bu heure bii suba ca sept heures wala huit ngay dem. wallaay wallaay wallaay. diggante bu doy waar la boo fa fanaanee. Hmm. agresseur yi loolu la def yaa xam. Hmm. force ñu fay loola loo wër te la boo xoolee liy ñoree Casamance ak yu demee noonu sax te ak si fii maanaam jafe ba muy yàqu ñàkk ay yoon waral na ko. jeex na. donc diggante boobu bu ñu defee pont bi. Mhm. nga xam ne ku ñëw da ngay jàll rek ci fële. Mhm. ku bëgg ñëw fii jàll si fii. Mhm. loolu lu ama am solo la. jar naa jóg. waaw jar naa jóg jar naa wax yiw jar naa jar naa ñaan. dëgg la waaw daa mel ne dëkkandoo Oustaz jàmm ci gën rawatina dëkkandoo ci wàllu ay réew. waaw ak itam Gàmbi mi nga xamante ne suñu dëkkandoo la di réew mu bokkul ci réew mi ba noppi nekk ci biir réew mi. keroog ba ma demee dafa digale Sénégal ak. ba pare te taxut mu doon Sénégal. keroog ba ma demee Gàmbi. di fa def albidaay yi comme nii. ndeysaan ba fi Sud FM di nekk. waaw ba fi Sud FM di nekk ma fekk Pape Diomaye Thiaré. Mm-hmm. Eh, tama tamba maa ngi ko defoon ci. ak dëkkandoo. Mm-hmm. waaye nag ci sensu réew ak réew. Mm-hmm. waaw laa ko defoon. ndeysaan ak dëkkandoo bi may def maa ngi ko defoon ci sensu réew ak réew. ak diggante réew ak réew. waaw mu ngoog. wane ne ginnaaw eh, ak dëkkandoo maag suñu mbàkk si la. Mm. dafa am ak nuyoo. Mm. diggante réew ak réew foofu doon ak nuyoo. Mhm. waaw ndeysaan ak joxante loxo lay doon. waaw waaw joxante loxo. waaw. Mhm. ak diggante réew joxante loxo. joxante loxo la doon. Mhm. waaye doon asalaamaaleykum waaleykum salaam. bu Gambie joxee loxo senegal senegal jox ko loxo. moo tax ñu daal wax Sénégambia. ñu benn. waaw. foo boo boo duggee fii. am na ñoo xam ne foofa lañ fekk baax ñu ngi fii. nga dem foofa am ñoo xam ne fii lañ fekk baax ña nga foofa. waaw la kon yooyu am na solo lool ci diggante yi eh, ginnaaw gi eh, soxna soosu doonoon soxna Lalo Keba Dramé moom la yaaye jàmme yónni eh, jëppal ca kër ga mhm. waaw wax ko ay baat mu wax ma ko. ndeysaan ndeysaan. <laughs> ndeysaan waa ngi denc baat yi ba léegi. ndeysaan lu am solo la. lu am solo la. lu am solo la ci diggante ñaari réew yooyu oustaz ndax euh, ni ma ko waxee léegi. léegi nag nooy jàngate yooyu nga xam ne moom lañ ci teg maanaam wax lu jëm ci wàllu pont bi boobu fa war a def benn la ci yañ fa wax. Mhm. wax nañ sax 60 pour cent yi daanaka féete na boor. Mhm. Euh, waaye lu jiitu loolu dafa mel ne vice présidente ba nga xam ne moo fa nekk topp mhm. ca président ba di Adama Baro. dafa tàmbali woon wax daal ne moom daa mel ne rek boobaak léegi daal ay wax rek la ñuy def waaye taxul ñu jëmmalagun dara mhm. ci ay bis googu la conseil bii am nooy jàngate loolu waaw mooy danoon soññe hmm. ndax xam nga Afrique hmm. songu projet àggale ko suba daf leen a yombul hmm. dañuy mépp <laughs> Afrique gii sañ mbàkke waaw gis nga buñ doon tëli suñu tëli bii jaar ci buñ buñ rajo bi du jeex 2018 de fi la ko 19 di fekk ndeysaan ñun noonu lañ mel ndeysaan ba nu tàmbalee jam ñaajo gii ba léegi. Mhm. lu ñoragum. dara voilà. Mhm. Mhm. te jam ñaajo dafa mel am na ñu ñu fa waroon a sañ ci fi mu ne. yàgg na. <laughs> wax man man xaw ma sax tax ma yàkkamte ko man tamit. xanaa kay oustaz am réew ñoo war a toll ci di avancé rek. barki démb damaa dem dëkk ñu ngaa xam. ngaa xam waaw. ndeysaan ngaa xam wala jogo. waaw. waaw ñaar jogo jogo waaw. dégg nga. Hmm. jogo la. Hmm. ma ne la waaye seen jumaa ji lu ci des. Hmm. ñu ne raax ak karo. Mm-hmm. ndeysaan. noonu du ngeen ko jullee. Mm-hmm. maanaam ñun suñu réew mën nañoo def dara ba pare jeex na mat na. Mm-hmm. ma leen jàkk ji fi ne unité bi jàkkaam ba mu koy ba mu koy sañci. di sa julli. jàkk jaa ngay seen na. ci jamonoom ba ba ren jii bi ñu demee ak Makka. 2017 bii. waaw ñu nga fekk ñuy liggéey. dëgg la. bu ñu doon bu ñu xaar mu pare kon heure bi pa jullee guñu ko. wallaay sunu projet yu bari noonu la mel. Mhm, mhm. dëgg la de. moo tax te nag am na ci tey doguma la ci maanaam ci jam ñaaju yoogu ay bâtiment yoo xamante ne daa mel ne léegi mu noppi. noppi na <laughs> ah ah ma wala boog ñun ñoo amul xam-xamu noppi na. Ah, doy na waat xam nga am ñoom fi seen yoo xam ne bu fekkoon ay ministère la daa mel ne bu subaa la di yóbbu ñoom ñëpp daa mel ne état nag ci wàllu immigration mi léeg mu teg ko ci ay calcul fi ne defe naa at mii nag danañ immigré lu bari ndax atum campagne la ndax léegi léegi ñu immigré lu àggagut ndax maa ngi fàttaliku aéroport bi maître Abdoulaye Wade laata mu doon dem wàccoon na fa ak avion <laughs> <laughs> ne noppi na te toog nañ lu mat at ñu door ko ubbi waat wala ay at ëpp ay at kay <laughs> lu ma juróomi at xanaa keroog bañ koy def kay eh. la imam Mbaye Niang mm-hmm. wax ne ah mm-hmm. noppee gudde mm-hmm. loolu la waxoon keroog. Mhm. mu ne noppeegut ndax moom ci yooyu lay yëngatu. ndeysaan waaye daal ñun sëñ Mbàkke. Mm. loolu def noo topp. ndeysaan soo demee bitim réew. Mm. da ngay romb fenn ñu ñu baaree ko nii. Mm. ci la sa nga romb ñu dindi ko. dëkk daa am lu fa doon defar wasalaam. dëgg la wallaay. noonu nag dañ koy def. Mm-hmm. bu yàgg ca lool. Mm-hmm. tey fi ne boo duggee ay géej wa yii. dugg pikin gi ak nangam. fañ gas def koy sànce mhm. sàllaaw oto yi doo xam foo jaar ma nga ne ñàgg nag suñuy sànce day waaw 1960 ba léegi wallaay boo demee ci Jurbel gee de suñu bedd yi doon defar gis naa ko eh, ak a yàgg gis nga ko waaw moom léeg ñu ne tar dañoo jël matériel yóbbu ko dëkk sàngam àggale ji foofa day mel ni benn otum nduraan doo nga am Sénégal <laughs> loolu kiimaan la moom kiimaan <laughs> loolu donc ñu cent 1960 ba léegi mhm. buñ defoo nii pont bi pont bi nëgë ni pare nañu mhm. dëgg la ah waaye bàyyi ko nii rek bag bi bag bi bag bi mm. bi bu bu paanee nga sonn mm. féri bi féri bi bu bu set oh mm. loolu daal bu bu dayee dana am lu am solo lu muy def ci diggante bi bu maango départé fekk fi ndaw ku ndaay balaa fuus mu ñëw dëgg waaw ndeysaan lu am solo la oustaz jërëjëf ci tomb boobu ak ni nga xamante ne noonu nga ko jàngate dafa mel ne kon euh, am réew moom ku ko yor da ngay ràbbalante ak àdduna si waaye nag la muy sori sori tàmbalee ci ñi la gën a jege ci farata yi la bokk moo tax fexe ba suñu diggante suñu réew yi ñu diggal lool te itam suñuy doom nekk fa ñoomee ñu nekk fii rataxal ko am na solo lool wallaay ndeysaan muy Gambie Guinée Mali Mauritanie yooyu ah rek yëpp bu ci nekk rek solo soo daal dem ci rek <laughs> mhm. ndax kilifa gu jóg bokkut ak kilifa gu yónnee dëgg la lu am solo la waaw oustaz ci wàllu njàngale mi laay dugg moom itam boole ko ci xibaari daara ji mm-hmm. moom itam de ay coowam daa mel ne jeexagul ba léegi mm-hmm. daa mel ne bu ma koy jàngat dafa mel ne jàngalekat yi dañoo taxawoon fañ taxaw état am lu mu leen gaaral ñu bañ état fastay loxoom di leen seetaan mm-hmm. mu mel ne fim mu ne ñu toggoo jiit la ñu nuróol te kenn nangu te féete ak fett gi ba tax na daal waajur yi am na ci ñu amum tiit ci année bi ne boo moytuwul baa du doon atteint année boo xam ne année balance lay doon ndax grève yi bari na te njàng amul fi sëriñ si war na woote. sëriñ si. waaw. sëriñ si xalifa seen roy. nu war na woote. ndeysaan. king fa de place. Mhm. woo syndicaliste woo woo bi. Mhm. fa aslihu baynahuma wa in taifataani min mhm. al mu'minin ñu doxal ko. wallaay fa aslihu baynahuma waaw. bu xalifa yi toogee. nu ne syndicat lu xew. waaw. ñu ne syndicat yi. Mhm. wax leen lu xew. bu ko defee Cheikh Diop yéeg ne lii moo xew. bu fekkee ca la bokk. Mhm. <laughs> ndeysaan. ah dëgg la wala Cheikh Diouf yéeg. gaa mhm. daal danañ wax lu xew. dégg nga. waxee li xew ba noppi ñu ne gouvernement bi yéen lu xew. waaw. bu ñaar ñëpp waxee sëñ Mbàkke. sëriñ si daañ dégg ne. ñii ñoo ne ci yoon. wala ñii ñoo nekkul ci yoon. ñu daal yëkkati baatu hee. Mhm. kon oustaz su ma la déggee sëriñ si dañoo war a dugal seen loxo ci eh, liy xew ci société bi. ah. wa maa ala rasuli illal balaa jeex na. ah damaa gis kat bi problème amee nii ñu ne na sëriñ si ñëw dugal ci seen xalaat nga woo leen te léeg buñ bu tàmbalee jëm ci wàllu politique ñu ne sëriñ si moom nañ génn ci politique. xam nga comme dañ cee bokk buñ xaaree ñu woo leen. Mhm. ñu ne leen génn leen ci. Mhm. loolu système la bu baax bu buñ doon naqe sëriñ si mooy. politique baaxut man nag ñaal ma ma def ko mhm. ndeysaan déggal mhm. politique baaxut mhm. dafa salte dafa nangam ba nga ne ah lii koy ëpp naa def mooy leen nag njeeg man nag ñaal ma man ma def ko jeex na ndeysaan buñ leen woowoon daal sëñ Mbàkke jàngalekat yi daañ wax lu xew buñ pare état bi ñu wax ko lu xew buñ paree ñu xam ñoom ñaar ñii kan lañ ci joxañ baaraam ndeysaan dëgg la lu ko bay dañuy dem rek te doole dooley dooley syndicat. Mm. jërta xeeb. Mm-hmm. dégg nga taxawaayu état. Mm-hmm. jërta xeeb. Mm-hmm. loolu rek la ndeysaan te mm. su fekkee ne mm. jàngalekat bi day jàngale ci état bi di xarmat di xarmat mooy day wax ne kon moom liñ koy jox daa doyut loolu lay tekki ah loolu laa yaakaar ni hmm? loolu laa yaakaar ni <laughs> ndax état daa war yëkk ci dara jox ko ne nag boo fi xaratee mat. Hmm. lu xew yaa ko indi. mais oustaz dafa man léeg-léeg loolu ma xalaat ci mais dafa mel ne bu ñu autorisé école privée mu am daa mel ne loolu moo yoonal ak xarmat waaw xam nga dafa am école privée nu mu war a amee ndax ginnaaw bi état amee ab université ba noppi jëlaat ay étudiants am yakkalaat ko yeneen université yoo xam ne ay ay privé lañ jëlaatub xaalis jox leen ñooñu fan la ñuy jëlee jàng gis nga fonctionnaire hmm. dañ naan ko sañoo nàngam hmm. li nga xam ne dañ koy def pour wutum xaalis. Mhm. daf ci am yooyu boo demoon du wuti certificat ya koy maye. Mhm. dañ naan la yow sañoo ko. Mhm. kon ci clandestinité nga koy bëgg a def. te su boobaa nag du defar day yàq. loolu la yëf yi. waxtaan bi dañ ko war a bañ a yërëm. waaw état bi ñëw toog tudd ko. waaw sëriñ si ñëw toog. woo syndical si ñu toog. est-ce que état itam oustaz bu tollee foofu mu toog jàpp njàmburam mel ne kuy ñàkkante. loolu mooy njariñ ci moom wala déet. léeg-léeg mu nekk njariñ léeg-léeg mu nekk lor. Mhm. waaw misaal mi ma la ci bëgg a indil ci Guinée damaa gis ci 8 mars bi jàll. Mhm. bi lu mel ni amee fa nga xamante ne daa mel ne état bi daa toog fas say loxoom. Mhm. bàyyi leen rek ñuy dox bañ génnee ñoom ngir feete ko. parents de léegi rawatina jigéen ñi doon dund bis bi ñoom ñoo wone ne daal dañoo doyal sëkk ci loolu na état bi wax ci njàngale mi mhm. loolu am 8 mars 9 mars situation bi daal di réglé wu mhm. ndax ñun tam kon jutut nag eh, ci ñu wax ak état ne ko réglé lii bonne fois pour tous waaw xam nga ñooñu seen seen lisaanu xaal mhm. fa mu toll ñun suñu sëriñ seen lisaanu xaal a toll foofu ñun du ñun ñoo fa toll mais sëriñ ci la fa leen ndax ñun ñaare bu ñu génnee di wax suñuy wax du am benn pois bi def ndax dafa am ñu dox suñu digganteeg wax jeeg ñoom seen yooyu. Mhm. tey oustaz wax na oustaz wax na mhm. wa salaam. waaw waaw ko jox waaye Serigne Ba wax na. Mhm. kon oustaz suñu réew mi sëriñ am na fi wàccuwaay bu rëy. bu baax a baax a baax. waaw ndax sëriñ xam na loolu. sëñ Mbacke léeg-léeg ma defal la benn formation ci. alquwatu naima. waaw koo xam ne dafa am doole pare doole ji di nelaw. voilà benn force buy nelaw. benn force buy nelaw. force boobu di nelaw bu jógee. mën naa defar benn kàddu lay wax rek mu defaru mhm. waaw mhm. genn kàddu rek lay wax mu defaru mhm. te rawatina nag koo xam ne kii bu dara xewee politiciens yëpp a ñëw fa nga toog hmm. dana waar dëgg la de bu màggal xewee baa gàmm moom kay koo ci woo mu ñëw te ku ne bëgg naa doon sab xarit jeex na mu ne sax euh, fi mbir yi toll mooy kenn ku ne day bëgg wone wane ne man maa gën a jege sëriñ bi parce que ele parce que élection yaa ngi nële loolu day xew ci réew mi fi mu ne élection yaa ngi nële maa gën a xëj ku gën a def sa déclaration <laughs> fi mu ne kay sëriñ see aag moom ah waaw mu ngoog <laughs> ndeysaan kenn ku nekk di feeñalaat sa njëbbal ak euh, <laughs> sëñ bi aaye yeeg addis yeeg bay di na xos ci penc bi sëriñ Cheikh ba muy firi wattel kal ayaam waaw ndeysaan daawil xabeen naasi dana mm-hmm. adduna day dox mm-hmm. euh, diine aye mm-hmm. danañu dem ba jëmmi jamono. Hmm. politique aye. Hmm. mën ñu dem ba jëmmi jamono. Hmm. aada aye. mu ne jamono ngi ñëw économie mooy aye. te ak ayam lu defar day yàq. dëgg la. ndax euh, kon moo aye nii. moo aye nii. oustaz danaa taxawaat ci tombu sëriñ bi nga tudd léegi. xam nga ñoom wax nga dëgg. maanaam koo xam ne yor na force. force bi di nelaw ci loxoom. waaw loolu dafa metti waaye léegi moo ko war a yee. parce que bu fekkoonte ne tey oustaz Alioune Sall mooy sëriñ bi saaliwu ne ci wetam ba pare euh, du ko du ko jox information yi li war a xew ci dëkk bi njàng mi fi mu toll ndax war na cee wax wala ndax nangam maanaam moom xamul li xew daal dañ koo nelawal rek bu ko defee mu toog ne ci yeneen ne ci ay jumaat euh, sëñ bi di tabax rek xam nga loolu day mel ne kii wut daal lu lu xaw a métti la hmm. suñu borom dañu wax ne hmm. bi maxtuufisu min kitaabillah hmm. maîtriser leen téere bii daal xuraan mhm. muy ngànnaay ci yéen mhm. wa kaanu ali shuhada la ci teg informé wu leen mhm. seeta lool informé wu leen waaw kon xam leen li xew <laughs> eh, hmm? xam nga sëriñu kese kese boobu métul gaa dañ lay man dëgg la de saa sëriñ bu xam lu xew nag baax na waaw ndeysaan lu alxuraan def ne eh, nu koy waxee tuwaay ñoxtu fi sumin kitaabillah wallaay wa kaanu maîtriser leen alxuraan baqara ban naasi ba leen ci dara réer dana tax ngeen am benn force. dëgg la wa kaanu ali shuhada. Hmm. te informé wu. dëgg la. xam li xew. xam li xew. ndeysaan am nga sa xarit bu nekk Jurbel sëñ Moustapha Dem. waaw euh, moom xam nga sëriñ daara la. waaw nde suñ sëriñ bu ñu jàngal lu baree bari. waaw euh, sama yoon wee ma fa mujjee dama faa dem. waaye mu ne déglu naa seen émission bi. pour ma dëggalal la li ñuy wax ci wàllu information. waaw waaye nangam ak nangam boo boo ko waxee woon nii boo ko waxee woon nii nga yëg ne kooku xam na li xew. waaw tey tey bu demoon tey ba war a jóg wala mu war a wax du làmbatu fan laay jaar. ndax xam na ban bouton lay bës jàmm am. lu am solo mu noonu. waaye sëriñ bu ëppale boppam déglu rajo ëppale boppam seetaan télé ëppale boppam laaj nit ñi la xew kooku oustaz tam nan la mën a defaree penc mi. ah xanaa àllaaxira <laughs> <laughs> ñu xaar àllaaxira ba xam kon. yàlla na yàlla yërëm amiin yaa rabbal bi foofu la nekk. ñoo mhm. ñu génnoon ci Guinée. Mhm. ñoom seen lisaanu xaal noonu la. Mhm. dañuy génn wax mu dañ. nun nag dafa am foo xam ne fii fa la yëfi yam waaw muy lu am solo oustaz jërëjëf oustaz kon ñu jaajëfal lu baax a baax ci tomb bu am solo boobu jëm ci wàllu njàng mi ak yu demee noonu wax nañ ni sax étudiants yi wala xale yi ci boppam ñoo fas yéenee grève ñoom mhm. euh, tàmbali nañ ko sax ngir bëgg a wax ne nag nañ leen jàngal mhm. nañ leen dimbali ndax année bi sowewu ndax am na ñoo xam ne ñi ngi war a def bac naga ni seen i examen kenn xamut ndax danañ ko defam duñ ko def mhm. ak yu yoo xam ne daal léegi ñu ci weer yi ñu ko war a def te fan la ñuy féete loolu daw na yaram de daw na yaram loolu xam naa man day su jàngalkat yi jege woon dama leen di déey ñaan leen ndeysaan dama leen di déey ñaan leen ñaan leen bisimilah oustaz ñu bàyyi nga déey lee ñaan leen peut-être ngi lay dégg déey bi mooy ak ñaan gi hmm. ne leen fii ci àdduna hmm. képp ku am force boo ci boolewul diir mi hmm. lu ne mën nga koo def wallaahi wallaahi te bàyyi xaadima jaxate kala ndeysaan allasi alay tawakkala ca kër Makala <laughs> daf doon wax ne bu ñaar di xëccoo dara ki bañ mu yàqu moo ko moom wax na dëgg hmm? Hmm. nee na bu ñaar di xëccoo dara hmm. parce que dafa am ñaar ñu mësoon ñëw ci moom di xëccoo am aw mille francs dégg nga mu ne diw mu naa mu ne ko jox ma paaka bi ma xar ko ma dagg mille francs yi ku ci ne jëlab xaaj kenn ka ne ay ca mu ne ko moomoo ko bàyyi fi jàmbur bàyyi li fi jàmbur daal ne waa ji moo ko moom kon bu état di xëccoo ak syndicaliste yi bu kenn jàpp ne bu yàqoo sama yoon nekku ci déedéet kenn du yàqloo moom su ma leen doon loolu la leen di déey su ma leen doon ñaan ma ñaan leen même su fekkee yéen moom àq yi indemnité yu ñu leen di yokkal wala ngeen am te du logement wala lu mën a doon. yéen a ko moom. may leen nu ko. wala may leen ma ko. ñu teg ko ci suuf. wuti ko nag. gone yi delluwaat ci néegu jàngukaay yi nu jàngal leen. defar nit moo gën bari xaalis. la wallaay defar nit moo gën bari xaalis. wallaay ndeysaan. ndeysaan cay defar nit. dafa am mbër mu masa yi Mm-hmm. Abdou Diouf. ndeysaan ndeysaan waaw waaw nuy waxtaan Abdou juuf ne ko ba ngay bëree diw. Mm. maa ngi yéeg ci garab sàngam di leen xool. Mm-hmm. mbër mën a ñokket na ko waxal waay. ndeysaan ndeysaan. mu ne ko waaw mu ne ko ci suma xamoon keroon yaay doon président. wallaay wallaay <laughs> mu ne ko kon ma boot la <laughs> maa lay boo dugal la. <laughs> loolu am na solo lool sëñ Mbàkke. oustaz looy dee état nag gannaaw dee nga jàngalekat bi ñaari yëf yooyu. état li ma koy dee. Mm. mooy dafa jaboote syndicaliste yi mm-hmm. yor doole ji mm-hmm. jaboote xale yi jàng ba noppi yor doole ji mm-hmm. jaboote parents yi ndeysaan bum ñéeb lu lu mën ci yëf yi waaw bum ñéegit ñéeg mooy def naa ko demu ko defati déedéet jaboot ku leen jaboote sañ mbàkkee ndeysaan boo dee ñéeg yàqal lu bari te seytaane mooy ñéegloo nit ni la ajul doo seen morom wallaay waaw nga ne ko <laughs> boo ne sogg rek mu yàqu dëgg kon bu leen bu leen bu leen bu leen négociation yi woote leen waxtaan leen su fekkee ne am na lu ngeen denc tamit leen yokkal te ku leen yokkal nu jël ngeen yokkal leen nu jël bu fi amut ngeen wol ne leen dafi amut ne bu fi amoon ñu yokkal leen fi ne ñooy ndax nit des na wax ak moom ba mu ba dégg la mm-hmm. te fekk joxoo ko dara ndax euh, wax ju rafet mm-hmm. euh, sarax la dëgg la lu am solo nga wax oustaz mm-hmm. jërëjëf ñu jaajëfal la bu baax ci tomb bu am solo boobu jaajëfal mbokk yi ñuy déglu yëpp di rafetlu itam message yooyu nga joxe euh, te itam muy message yu am solo ñeel jàngalekat yi ak yi nga xam ne moom la laaj di seen àq ñoo ko moom waaye nag sañ nañ koo bàyyi ndax defar état itam mooy jaboote ñëpp war naa gën a yokk góorloom ndax jàmm am message bu am solo nga lancé oustaz alhamdulilah ma wéy ci tomb bi ci topp ci xibaar yi daara ji te mooy bi ci mujj hmm. te waroon ci jiitu waaye ni ñu tëralee xibaar yee tax hmm. amal ko solo tax ñu mujje ko mooy hmm. atteb suñu mbokk imaam Alioune Badara Ndaw moom de oustaz dañ koo tuxalaat ba juróom-ñeenti fan ci weeru avril maanaam le 9 avril kon tuxalati nañ ko laay wax euh, moom oustaz lu xew ci mbiram bañ koy randa randalee nii rek euh, lu metti bu deb dogal mm-hmm. dogal bu metti la ndeysaan mm-hmm. buru liñ ko teg métti na mm-hmm. daaraam ja nam ma ko lool ak min baram ba soxna ya gëj koo gis lool ñim defar ak ñim jàngal bari ci penc mi lool hmm? dugg ci giraawaal it di la téléphone te nga mën a waat ne bu ñu dee fanweeri nit. Mm-hmm. xamu ci lu juróom. ndegam xam nañ sax juróom. Mm-hmm. loolooy loolooy yëf yi. ñu dàq ka dàqaat. ndax xam nga luwaay tubaab. Mm-hmm. boo ñëwee ñu ne tur wi nga bind diw. a bi dafa nekk a bu mag. te ngeen bind ko a bu ndaw kon nañ ko dàq ba la neuf ngeen da ngeen dawal bi. bi ngeen di bind diw mu sant sàll hmm. comme sant wi ngeen di bind sàll ji sant wi defar na nekk lettre yu mag hmm. yooyu la jàpp di ko jàpp di xëcc muy dem rek hmm. tabarkalla mu metti lool ndeysaan ndeysaan yombut de Mm-hmm. yombut de yombut xam naa mbirum atte moom dafa nekk loo xam ne itam fexe nañ ba dugal ko ci ñag boo xamante ne wax ci moom daanaka lu jafe la mm-hmm. ndax euh, day loo xam ne bu nekkee ci loxol yoon ñu ne la mi ngi ci mm-hmm. bu ci wax fee yoon noppiwu ci ndax xamoo fa mbir yi toll waaye oustaz lu war a tax ñuy maanaam ñuy tuxal ab atte ak di ko tuxal tuxalee am lu ñuy seet te gisaguñ ko ba noppi wala euh, loolu boo koy seet te gisagoo ko da ngay téye waa ji ay at ba noppi ne ko maa ngi wër ay preuve maanaam daal wala lan moo war a xew ba ñuy ba nii nga xamante ne fu ñu ko indee rek tuxalaat aw weer tuxalaat aw weer tuxalaat aw weer li daan xew léeg-léeg hmm. mooy sunu téyee ko mel ni hmm. ku ñu bari laqu ci ginnaawam hmm. dañ lay may euh, bàyyim néggandiku bàyyim néggandiku ndax saa bu ñu la soxlaa gis la. parce que doo génn réew mi. waaw demoo fenn. demoo fenn. bu ñu gisee lu bees woo la lii loo ci xam. am na loolu am na. bu gisee lu bees la ne loo ci xam. wala ñu la bul génn réew mi vendredi bu jot nañ la gis. wala bul génn réew mi. 15 jours yi nañ la gis. am déet su ko defee nga continuer ya ngay def yow. say mbokk féex. say àndandoo féex am mm-hmm. jàmm mm-hmm. te itam dana am benn stabilité bu muy def ci mpénc mm-hmm. dëgg la waaw danay am waaw dana am dana am ak dal gu muy def te réew day toll foo xam ne fii dal gi day gën boj maj-maj ji waaw léeg-léeg réew day toll foo xam ne fii dal gi mooy gën maj-maj ji parce maj-maj waaw dee su ko xeeb am na ñoo xam ne ñu xeeb maj-maj bu ñu sañoon muy maj-maj rek wallaay ak a bax di wañax wallaay wallaay waaw coow yooyu ci la ñuy dund ñoom mu am yoo xam ne boo ko defee rek mhm. am na lu mag a mag loo def loo xam ne dana dana am ak dal tuuti mhm. ci wàllu googu te jaww ji dal tuuti sëñ Mbàkke mhm. climat bu dal boobu moo jig réew moo jig ñi jiite mhm. moo jig ñi jiite mhm. ndax jaboot jàmmay mbokkam dëgg la jàmmay mbokkam oustaz nga wax lu am solo moom itam léegi bi ñu wax ci jàngalekat yi àggoon nañ foo xam ne li di wax cëgg desatut ci guy ba tax ne na sëriñ si wax nañ ci ñoom ñoo war a jóg ngir wax ci diggante boobu mhm. imaam Alioune Badara Ndaw mi itam di kenn ci daara ji ak lu man di xew mm, kenn la ci daara ji yor daara mokkalal aw nit ñu bari alxuraan la ca biir ay mbiram yàlla rek a xam waaye jullit yi mbokkal daara ji rafet nañ njortu ci moom léegi loolu oustaz itam nitu daara yi ban taxawaay lañ ci war a am bu weesoo bii ñu ci am ci ñaan ak mm, euh, wàccee kaamil dem di ko taxaw waaw ñoom de danañuy faral di dem taxaw ci wetam mhm. bu génnee gis leen ku ci am sañ-sañu seeti ko mhm. nga ñaan sañ-sañ mhm. dem gis ko wax ak moom defal ko muñ loo ko waaw ndax moom tam jamono yi mu fi toog toogul noonu rek waaw mm-hmm. am na ñett ba ñeenti liggéey yoo xam ne foofu la ko liggéey mm-hmm. ndeysaan loolu ñu defoon Sayyid Qutb dañ ko ca kaso ba waaw mu firi alquran fisila fisila alquran ndeysaan waaw moom mi tam mi ngi koy def xam naa ñeenti liggéey ba juróomi liggéey yoo xam ne mm-hmm. foofu la ko defe te bu ci nekk liggéeyu barke la dëgg la sëriñ saa ngi ci dox xëy na ak dee wax ak ñaan ah yàlla na yàlla def ci tawfiix amiin yaa rabbal aalamiin mu bañ a weesu juróom-ñeenti fan ci weeru avril incha allah doonte sori na nag mhm. Mhm. wallaay soreeti na doonte sori na mhm. ndax taa buñ ñu ko xëccee duñ ko wax semaine bii di ñëw weer la ñuy tëb rek daal la ca ca des dëgg la waaw doonte sori na nag moom kay par weer lañ koy yóbbu ndeysaan xumma nag lu xew waaw waaw xëy na ñun ñoo yàkkamti te ñoom noppeeguñu waaye daal lu ci mën di am mi ngi noonu waaw day bëgg a yàgg day bëgg a yàgg day bëgg yàgg ndax nekk ci loxo ñaari at ah mi ngi bëgg a yàgg mi ngi bëgg a yàgg te ah. nag ñi ko séqal comme ay donga lañ ñoom duñ taali puno duñ grève duñ def dara loolu lay yëf mm-hmm. wallaay ndeysaan ndeysaan baax na eh, jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel oustaz loolu mooy xaaj bi nga xamante ne moom lañ jagleeloon xibaar yi nga xam ne mooy xibaari daara ji mhm. eh, xam naa minute bi ma desee oustaz ci wàllu politique rek laa ciy ñëw mhm. tuuti toftal ko ci xibaaru daara ji mhm. mm, bu fekkonte ni njàngatu xibaar yi laa koy tudde noonu laa koy tudde tey eh, muy maanaam tolluwaayu politique ci réew mi nga xam ne campagne bi jotagut waaye pré campagne daa mel ne campagne fi mu ne. Mhm. Euh, daanaka daal mm, moom euh, ab pëccëxoo la boo xam ne fi mu ne oustaz maanaam wax ju waaye wax rek <laughs> ma ngi ko naal jëmee 2019. ay code la yu ñu décodé ak yu ñu de wut rek waaye 2019 ñu tax a jóg. loolu moom noo ko jàngatee. waaw maa ngi ci bëgg lool. <laughs> ak itam di la topp ci njàngat mu ngay njàngat ci wàllu lënd ci guddi. ndeysaan <laughs> tabarkalla. ndeysaan sëñ Saliou di ma wétli. waaw dégg naa ko moom tam dégg naa ubbil ko micro. waaw moom daal tabarkalla de. ah alhamdulilah jërëjëf. daal bon li fekk noppi woo duñ. Hmm. duñ duñ tëj suñu rajo. Hmm, alhamdulilah ci wërtéer lan bokk. moom kay boo nee ci yàlla rek sama paree tiitaru <laughs> <laughs> boo wootee ma tiit waaw jërëjëf. dégg nga waaw ndeysaan. Euh, sëriñ am Ahmed Tidiane si dafa daan wax ne. Mm-hmm. campagne. Mm-hmm. juróom benn weer doy na ca. Mm-hmm. wala sax ëpp na ca la waxoon. juróom benn weer. mu ne ëpp na ca. muy genn walla at. mu ne waaye nag def ko fukki weer ak ñaar. du lu kenn xam. dëgg la. sunum réew. Mm. électeurs yi. parti leen ëpp. parti da bari na. waaw. trois cent quatre vingt seize defe la ñu wax. wala boog jege na ko. wallaay. ah. Mhm. ñun quatorze millions lañ. ndeysaan difficile nga xool li ngay am. waaw te quatorze sax ñëpp dañ jur wate di. waaw daanaka liy wate ci réew mi ndax man na quatre millions. ci ca la yam. waaw bu bëree bëri cinq millions wala six millions la ñu wax moom lañ bind. waaw moom lañ bind te ñëpp. ci kaagu ci kaagu gu bees gi. waaw. Mhm. kenn ma si gis loolu. léegi nag ñëpp jëm ca campagne ba. commencé nañ sànnentee xeer. Mhm. maanaam fi ne lu waay dencal sa morom. ci loo war a wax jàpp nga de war nga ko mën a wax léegi. dëgg la de mais saa affaire bu xoromoo ngi noonu réew mu ne 14 millions euh, liy tànn ki koy jiite matul juróomi million waaw nga xam ne kon yow ki ñu fal ba muy jiite ñi gën a néew ci réew mee ko fal. loolu la loolu la Xadafi waxoon benn bis suñu Mbàkke. <laughs> non affaire bi garaaw naa. Xadafi nee na. <laughs> rahimahullah. ah lii kay tax ku falu du am jàmm. waaw Xadafi nee na. <laughs> waaw. démocratie ci Afrique. Mhm. mooy yéen ñett ñooñu. Mhm. Ah? Hmm. ngeen di xëccoo téeméeri nit waaw waaw kii am fanweer <laughs> yow nga am xoolal yow mi nga gañe hmm. nga am juróom fukk waaw Pape Dieye ak Saliou ku ne am ñaar fukk ak juróom ku ne am juróom hmm. léegi yow loo leen gañee yow dara dara xaaj bi laa jël léeg-léeg sax ñoom ñaar ku ne day am fanweer man ma am juróom fukk man ma am ñeent fukk ëpp leen fukk jël réew mi. <laughs> ñoom ñu léegi juróom-benn fukk ma contre. Kadhafi nee na yow moom laa war na éliminer yow ñaar ñii nga xam ne ñoo fi nekk. Mhm. ñoom ñoo war a dem lu ñu dem. Hmm, ñu xool lu ñu def wala ñu walbati ko ne gars yi lu leen tee wateel kii. dëgg la ah loolu de moom oustaz danañ ci ñëw danañ ci ñëwaat. waaye lu am solo nga nga wax. waaw ndax 14 millions buñ ko matee wala 15 millions léegi 3 millions yi wate. tànn président. léegi onze millions yëpp ñoom wote wuñ ñoom ña nga toog di la xaar boo paree it ñu continuer seen i xeer rek te duñ wote ji vingt quatre sur vingt quatre ñool ñool ji du dakk problème bi ndax ña wote mhm. ñooy nekk ci wax ja am na solo oustaz ndax suñ suñ Babacar Si moo daan wax ne radiyallahu euh, wi ci poche bi mhm. carte bi ci poche bi mhm. moo gën carte bi ci gémmiñ gi. dëgg woteel bi ci poche bi ti denc bi ci gémmiñ gi. loolu mooy ñol ñol dëgg la kon nag suñu bàkk li ci tege mooy. li ci tege oustaz jaajëfal la bu baax jaajëfal mbokk yi doon topp xibaaru daara ji bàyyee waa rédaction bi barab bi ñu tënkal ñu xibaar yi ci français ak ki wolof ñu dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi. bu leen toxal si nag déglu fañ jëm duñ fay àgg incha allah.